What's this for? ngeen jëf mbokk internet seen lamb TV mbokk yi ñu ngi amoon mbégte bu baax a baax ak contentement mbokk yi ñu jàkkaarloo ak yéen waaye fas yéene leen présenté beneen jëmm ji nga xamante yàgg ngeen dégg turam mbokk mbokki bitim réew yaakaar na ak mbokki Sénégal yàgg nañ dégg turam euh, te mënuñu ko woon gis moo waral nag tey nag équipe bu seen lamb seen xarañteef équipe seen lamb seen sawarteef waaye équipe seen lamb seen bëgg lu baax te bëgg a dégtal internet lu baax ñu déplacé wu Dakar ñëw fi nga xamante ni mooy Bambey taax certifié euh, jëmm ji muy Serigne Alla mbokki yaay Wally Seck waaye Serigne Alla borom kan bi Mbaye ah, mbokk yi nag tey nag moom nañu fas yéene dalal fas yéene séq ak moom waxtaan waxtaan bu am am solo macha allah mu nekk jëmm ji nga xamante ni encore une dama leen koy wax bokk na si nit yi nga xamante ni wala si sëriñ yi nga xamante ni euh, lépp loo ko wax li nga xamante ni munu ko danaa la man kat sëñ àlla mënuma lii jéemal xooli leneen kon yaakaar naa nit kuy wax loolu ku ne ragal na yàlla waaye nit kuy wax loolu ku ne yaakaar naa am na li nga xamante ni suñu borom baaxee nag léegi suñu borom baaxee nag moo a tey ñu ñëw fas yéene siq moom waxtaan waaye fas yéene dégg suñu micro waxtaan ak moom pour waa réew mi jëriñu waaye waa bitim réew aussi tamit jëriñu parce que moodu moodu yi ku nekk xam nañu sonn nañu rawatina soit disant marabu ñuy wax yi ñu leen di woo di leen xaalis te mënuñu leen defal lu ñu bëgg te boo leen waatee duñ la jël

aajo na tey si émission bi dañ leen koy jox sëñ Alla maa ngi lay nuyu di te di amal contentement ak mbégte toog jàkkaarloo si jëmm ji waaw dama naan auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu tàmbali waxtaan wi rek euh, di nuyu mbokki àdduna yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu ginnaaw ginnaaw yàlla ak yonante bi ñu santee suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ bu baax a baax a baax di wax ne ñi kontaan nañ bu baax a baax si déplacement bi Serigne ak sa caméraman bi nga àndal. Kalidou euh, ak Pa Modou mais toog ñu leen di siyaar bu baax a a baax. Mhm. leen jox seen wàccuwaay kontaan bu baax a baax si déplacement bi tey nag. Mhm. waaw benn laa la bett mën la waaye yaakaar naa yow bu ñu la bettee taxul ñu mën la ndax dañuy ñëw fekk nga pare macha allah sëñ Alla balaa ñuy jubu si waxtaan bi dañ la gis nga wékkoo kaan te kaan boobu par defaa fois moom ñu lay dàkkantelee sëñ Alla borom kaan bi borom Bambey sëñ Alla kaan bi lan la. waaw kan bi moo nekk nii euh, li si làmb bari na bariwul parce que lii mën naa ne sama maam moo ko yoroon ñu naan ko maam yoro Thiaw ñu ñaan yàlla suñ borom oyofal suuf si kawam xëy na nag am na ñu nga xam ne bi ma nee dama yëngu si wàllum ñaan ñii bett na leen ñii bettuñu ñii bettu leen parce que fa ma bokk la lii ay sëtam mel na man rek maa ko si yor. kan bi mën naa ne kan bi nekkul n'importe kii laa koy jox mu téeg wala n'importe kii laa koy jox mu fanaanoo ko. tey jii kaan bi rek mbër bu am combat fekk mi ngi fanaanoog yow gàllaaj gu man di nekk sa kër ga si gun def si mbër mi day toj wala gàllaaj gu bon gu kaan bi fekk si kër am fa ñetti fan day toj moo tax waaw moom kaan bi gàllaaj gu kër gu mu fanaan gàllaaj gu bon nekk fa da koy toj lépp luy gàllaaj da koy daf koy daf koy toj sa maam nga ko doon sa maam waaw bi mu génnee àdduna nag fekkuma ko fi mais sama maam bu jigéen moo ko yoroon avant sama maam bu jigéen di génn àdduna laa ko jël si moom boobu yëngatu yëngaguma sax si avant mu koy jël mais bi ma ko jëlee dama sama yaay da ko njëkk jël dencaat ko ma dem jëlaat ko mu jëlaat ko dencaat ko mais bi nga xamee ne affaire yaa ngi ñëw lan ma koy soog a nangoo bàyyil waaw yaakaar naa fi woon da nga demoon nekk si àll bi di jàngi waaw maa ngi doon jànge kooki dëkkub sañ saxeer loo sa luga waaw après bi ma ñibbisee tamit nekk si oto yi di ak samay kilifa samay mag ay Mali Guinée Bissau fu nekk mais dëkk bu ma masaana dem rek damay dem xool laajte fu daara nekk ma dem toog fa di laaj ay secret mais ba mu demee xam ne matal naa matalu gu ma ba man xam ne am naa tuut laa commencé yëngu si li ak la fi maam bàyyi woon ma ñëw continuer mhm. waaw. li nga def yooyu yëpp yaakaar naa jóge nga daara ñëw si oto yi tey nga ñëw rek un bon mois nekk li nga xamante ni yaakaar naa kilifa la li nga xamante ni nga doon si ay maam est yomboon na mois boobu léegi parce que boo jëlee yenn affaire yi ku nekk dana wax sëñ àll lii sëñ àll laa est-ce yomboon boobu. parce que booy xool sax li ma nekkoon mën naa ne moo ëpp ay triangle yi mais ba ma xëyee bàyyi ko dañ ne ma doo am dara si sa àdduna parce que sa morom nga jàng métier ba mokkal ko man tey sama saak bee mu ko tijjoon tey sama permis permis C1 moo si nekk permis bi nga xam ne mooy dawal camion barki Serigne Saliou Mbacké tey bu amoon fii camion ma def première deuxième troisième ba cinquième ba regretté waat ko ba huitième regretté waat ko ba première. yow mi wallaahi nag mais nit ki lu suñu borom woo rek sa ngay dem mënoo si dara. Mhm. loo suñu borom wax laa ku leen si ngay mhm. si maa ngi sant yàlla mosuma si am ay gàllankoor wala nit woo ma di may wax ndaka su du noonu parce que sama lépp si yoon laa koy teg. parce que commencement bi dégg naa nag lu ne. Mm-hmm. du dem lu tax mu bàyyoo tey dem si lii commencement bi sama yaay di wax sama papa di wax mais ban day ma xamante nii ñi ngi gis ay nit di ñëw ay nit di may woo si seen kanam ay nit ñëw di gis ay résultats di ñëwaat si leen may soog a nangoo bàyyi ma doxal. ki nga waaw la sa maam sët moo koy jël moo koy yeggale te si kàttanu yàlla ku mbaxam fas yéene ñoo yeggale yoonam bi. Mm-hmm. parce ñi nga xam ne dañ koy mbubu yoo naa sama maam doon na lii rek ñoom dañ ko war doon te jaaruñu daara tarbiyewuñu jànguñu feruñu sax ijja mu mel ni tamit bëri bu ñuy dut si loolu la ñuy dut waa loolu am na gisee ñaan dafa am yoon loo mënul rek bu si dugg man tey bu fekkoon tey jii nii dama naan li gars yi man yëpp mën naa ko wallaahi lazim kon dañ may daw mais man mënuma lépp mhm. dama koy faral di wax wallaahi lazim tey li may woo si ay doomu aadama nekk bitim réew di may déclaré si ay maaraa mara yu bari sama téléphone bi seen i mu ngi fi tey su ma ko génne woon da nga yem wallahi lazim moo tax léeg-léeg ni daf may wane ma dama am wàllu rab wala dama am wàllu lii man la wax dëgg yàlla loolu du ko faj nga ne ma xamoo ko koy faj may la xaw ma kenn parce que bëgguma ëllëg boole laak nit mu lekk sa xaay ta sa aajo fajul nga ŋàññi ko di may ŋàññaale man moo tax sama compte TikTok boo fa duggee du ma tëj sama commentaire du ma ko tëj mukk doxal rek mu leer. non kuy def <laughs> mais am na la nga xamante ni yaakaar naa sëñ àll moom la gën a mën comme wax nga ko léegi sa biir wax nee nga mënoo lépp mais sëñ àll si lan la gën a basé wu lan la gën a man waaw li sama priorité dëgg dama koy faral di wax man naa bi ma nekkee si àll bi boobu maa ngi soog jublu si làmb waa Ngor maa ngi leen di nuyu en passage dama leen di nuyu ba pare. si tabu Ngor. fëgale bu Ngor mhm. ak ay abu aw gaa yëpp maa leen di siyaar parce que tey bu ma làmb xamee ginnaaw yàlla ak yonante bi ak sama ñaari waajur ñoom ñoo tax parce que ñoom ñoo ma fekk bawal ñu boole ma ak ñoom si tëngoor depuis premier combat am 2018 jour combat booy bawal euh, ak kii marle su ma juumul si leen xamante wallahi lazim si bu ngoor man maay sël ki nga xam ne maa ko njëkk wax li may wax si caméra laa koy wax bu fekkee du dëgg na génn wax barki Serigne Saliou Mbacke ma ne ko Siteu boobu maa ngi toog sama benn kilifa Guinée Bissau di am secret yu may jox booba nee naa du ma ne xam naa du ma ne xaw ma mais li ma njëkk wax mooy ne ma Siteu bu Ngor mii dina yéeg avion di dem aka wàcc dina am tour si làmb te dinañ ko dégg te dina si am ay tranga waaw te benn bi yëg avion bi am na làmb xam nañ ko ñetteel bi li si des incha allahu rabbi mooy tranga yi te si kàttanu yàlla dina ñëw ñoom ñoo ma jële bawal dugguma Dakar moo tax nit ñi xam ma mm-hmm. mais moo tax mbër bu ñuy mën di bëreel si àdduna waaw képp ku dëkk Ngor mbër boo mën di bëree si àdduna bu ma beneen mbër mi fayoon milliard mbër bi dëkk Ngor fayal ma fay ma ñaar fukk ñaar fukk yooyu laay jël mm-hmm. barki Serigne Touba mm-hmm. nga xamante dama koy confirmer parce que am Sa Thiès ak ba si ki nga xamante mooy Thiatou Yoff ak Tyson 2 am na ay tegtal yi nga ma waxoon wala am na li nga ma jotoon junju te yaakaar naa gis naa ko si combat boobu mu mel ni sëñ àll kon ba mu la déggee lamb daal si ay mbir daal si lamb nga ko gën a bàyyi xel waaw loolu am na guy gi ndemoon sàng fee mm-hmm. en général fi laay samp mbëri waaw nekkul waaw ak équipe bu nawetaan yi guy gi demoon noonu fa samp mbër fa laay samp équipe bu nawetaan fa laay samp politicien loolu moom suñu borom jagleel na ma ko. guy googu waaw fa laay samp lu bëree bëri mais pour ma samp fa nit nag à 100 pour cent yombul. xanaa équipe bu nawetaan bu ma fay xaalis bu weex tàll mooy tax ma samp la fa mbër bu ma fay xaalis bu weex tàll mooy tax ma samp la fa kenn laa fa samp xam ne sama diggante man ak moom du am xaalis mm-hmm. <coughs> muy si tabu ngor. ak fëgg la ah, la néew ma nag du daanu si àdduna man naa ne 2018 ba léegi maa ngi dugg si làmb wallahi lazim mbër mu ma ngemb jaaj jël combat bi au sérieux dugal la biir stade man 2018 ba léegi laa la wax ñaari defet la am si làmb mbër daanul ngembam laa suuf ñaar la beneen defet bi ñetteel bi tafaa mbër la te tafaa mbër par avertissement la perte kon ko xam nga ne ko ku ñaan depuis 2018 ba léegi si làmb amoo dara lu ñetti defet kon alhamdulilah maa ngi ñaan yàlla suñu borom guddal sama fan rek ba si kanam guy ga secret yu fa nekk yi parce que nee nga képp koy samp fa nga koy yóbbu secret garabu guy ga parce ñu bëri dañu dégg ñu bu ñu waree samp nit garabu guy lañ koy yóbbu garabu guy secret ñoo si nekk waaw secret yi si nekk bari boo si liggéeyu rek mënoo ko xam man li may faral di wax rek man du ma faral di bazarde sax samay bagage nii di koy wone si internet bi lii da ngeen na fekk ma si rek ma xam ne mënatuma ko nëbb moo tax ma bàyyi leen noonu hmm. mais garab googu li si nekk man maa ko xam parce que léegi da ngay toog yenn liggéey yi dëgg-dëgg pour samp fa nit di nga toog ba ay une heure du matin wala ay deux heures wala ay minuit ànd ak say nit dem fa liggéey li ngay liggéey ñëw toogaat mais secret yu bare nga fa. waaw waaw heure bu ne leen fa dem wax dëgg yàlla wallahi lazim maa ngi doon wax Kalidou sax ma ne ko affaire yi ma ajoon fii instant bi nekku fi mënu ma lu ko yóbbu ma ne ko mbir yi ñoo koy yóbbu parce que ku ma fa samp même bu dee deru bëy la dama ko fay weer bu dee deru nag la dama ko fay weer mais après boo ñëwaatee daal doo ko damay dégg ñu naan am na ñi nga xamante dañuy topp mbër di financé àll ay 3 jours maanaam du du ñu nekk fi nga xamante day am ay làmp ñoom ñoo fay nekk ci lëndamaay bi ay 3 jours pour ay sacrifice yi nga xamante ni wala ay tegtal yi nga xamante ni dañ koy digal ci làmb loolu tamit yaakaar naa am nga ay leeral yi nga xam war nga mën si mën defal waaw bu ma fay la lu ko mbër su ma ko jar mais su ma ko ngembee dëgg dëgg mu fay ma xaaj bu ko jar ba ma def li ma war a def parce que man nag xale laa dama koy wax à chaque fois man réyu ma xaw ma mënu ma ba léegi maa ngi soonu di jàng mais mbër bu ma fay lu ko jar ba ma def li ma mën a liggéey am naa ay kilifa yu nga xam ne tamit ñoo may teg si yoon di ma jox ay secret laaju ñu ma xaalis laaju ñu ma dara di leen nuy en passage di leen sant di leen gërëm bu baax ndax ginnaaw yàlla ak yonante bu weesoo li fi sama maam bàyyi li ma xam ñooma wallahi lazim mbër bu mu ñëw toog fii fay ma xaalis bu ko jar ma def li may def dem si ñoom tamit ñu def li ñuy def mbër du la daan si àdduna wala du gaaw boobu. ñoo jël engagement boobu. wallahi lazim ñu mën a maa engagement boobu. mbër moom nu ngoo fay xaalis bu la neexee boobaa contrat bi bu ñu koy signé man a yow nan dem police toog signé ko soo ma suñ la daanee nga ñëw jëlaat sa xaalis. suñu la dee. man loolu ñëwee naa ko. lan la dee suñu àll. non ma dara lépp yàlla la rek. billaay wallaay lépp yàlla la lépp yàlla la rek. xamuñu ma ak ñi ànd ak mbër ñu bëree coow nga ñeme jël engagement bu. waaw lépp yàlla la rek lépp loo def lu ne na ko teg si na ko teg si yoon rek wallaahi laaj man lépp lu may def dama koy teg si yoon barki sëñ Saliou léegi tamit yaakaar naa ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew kàllu ñooñu aussi tamit sonn nañu parce que làmbaloog jot na ay message yu bëri ñu koy laaj ay numéro sëñ àlla yaakaar naa ne jëmm jee ngi nii numéro moom dañ ko jàllewaale pour ku ko soxla ku ne rek naka woow ñu nekk bitim réew aussi tamit sëñ àlla sonn nañu ñu ngi liggéey te mënuñu am ñu ngi liggéey di yónnee fii sëriñ yi ñu ngi lekk seen xaalis mm-hmm. ñooñu aussi loolu di baaxee ban jàppale nga leen mën jàppale Euh, man nit ku nekk bitim réew wallahi la azimu man naa ne yàlla rek moo tax ma yàq xam naa bu ma ko xesat na ne kii moom li mu wax fan la ko teg mais li may laaj ñi nekk Sénégal du ma ko laaj ñi nekk bitim réew parce que ñi nekk bitim réew dañoo sonn sëriñ si leen a dóor a dóor a dóor ban sonn doog naa ko Seydina Mohamed ak kon waxtu wi yàlla bu ma raw nit daf may woo téléphone sax ma génne la koy sarax ma ne ko boo ko génnee ba pare loo jox baax na ma liggéeyal la li ma lay liggéeyal borom liggéey bi États-Unis la jëm lii barke Seydina Mohamed boromam fayu ma dafa tëb tëb envoyé ma ne ma envoyé naa la temps ndax sonn gi mu sonn am na ay maara xam nga bëgguma cité turu jàmbur mm-hmm. mais am na maara yu bari lekk nan xaalisu jàmbur am na maara bu nga xam ne si affaire yi Serigne lay lay lay làqatu di dóor waa mbiri Serigne Saliou lay làqatu di dóor ndax waa ji dana ma dama ko gis muy jënd ay ceeb ak yooyu naan taalibe Serigne Saliou du ko yóbbu si daara yi mm-hmm. mu ne un million 800 la ko encaissé ne ko da wut benn soo tijji ko def si ay këyit ak ay pépp dugub boo ko tijjee xaalis lay doon barke Seydina Mohamed ba nii su ko woowee du ko jël su ko messager du ko tontu te boobu nag na waaj booy bi mi ngi si kawam nekkul si kawam si côté baatin na waaj bu baax a baax dajale 1 million 800 jéem koo fay ndax booy bi na ko plainte carte d'identité bi numéro carte d'identité bi ñu envoyé xaalis bi kooku la ni njëkk jàpp soog di ñëw sa kaw. mais lan moo waral loolu suñu àll ñeme yàlla boobu. barke Seydina nit musuma man numéro yi dama koy enregistré nit musuma woo ma boole ko ko nit musuma woo ma ko. képp ku nga xam ne man sëñ àlla ma na maa jëflanteeg yow nga woo ma ma coupé la wala nga woo ma boolekale génne def vidéo nga dugal ko si compte TikTok yi barki xam Mohamed mës sa am barki alxuraanu karim man daa ma man dama lay wax fi ma dëkk wax la sama kër ne la bu bagage yi pare nga ñëw jël si ko maaraayu si bari buñ lay defaral di bagage doo leen tëg bët seen bëkk néegi leen di jël joxe ko man aw ma bëkk néeg déedéet man xale laa sawar naa te bu ma fay ko jar damay déplacé ñëw Dakar liggéeyal la guddi guddi Bambey voilà def nga ñu woon léegi ay affaire Kalidou yaakaar naa image yi yi sewo yi aussi tamit yaakaar naa am na yeneen affaire yi nga xamante ne am na si biir ay secret sewo yi lan la yi man pour moi sax ay sewo peinture la. non sooy du sooy peinture xam nga dem si àll bi di wut guddi yenn garab yi day xaw a metti soo am na bés nga xam ne wàllum cat la am na soo xam ne day génne liggéey am na yu nga xam ne kaaraange la am na yu nga xam ne ubbikaay la sooy daal yi si nekk daal bari na ak jour yi sooy am na yu nga xam ne pour footballeur la. waaw pour seen yokkuteek yooyu. waaw bu fekkee yii la tamit wax dëgg yàlla wàllum kaaraange la. yeneen i wàllum ubbikaay ak yooyu. waaw. borom boutique yi aussi tamit yaakaar naa soxla nañu ay bari yi nga xamante ni war nga leen ko mën baaxee borom boutique yi. waaw borom boutique yi dañ fiy ñëw borom boutique yi wax dëgg yàlla ñoom tamit dañ fiy ñëw ñu jëflante ak ñoom bu baax a baax a baax. waaw maa ngi gis ne yaa ngi naan baax na si ñi nga xamante ni ñooy reporter yi. waaw waaw yi waaw yéen reporter yi waaw yéen reporter yi yéen a moom loolu wax dëgg yàlla waaw. waaw parfum yi moo nekk nii yéen après dama leen koy xool lu nga xamante nii xam nga man yàlla dafa def dama am samay nit te boo amee say nit si lu neex la ngay xool war nga ko mën a te lii man daa am ñu nga xam ne dama leen si jàppale dama si am léeg-léeg lu bare baree bare bari mais damay xool jigéen ñi nga xamante nii mm-hmm. léeg-léeg amuñu si lu ñu jàpp mm-hmm. ñoom laay jël lu tolloog cinq mm-hmm. jox leen ko ñu dem jaay bu ñu jaayee li nga xamante ni man moom laa ko jëndee laa leen koy joxee ñu am seen bénéfice andi laal ma sama xaalis. lii lii kese wallaahi lazim tey bu maximum tey bu ma ko jëndee woon 2000. damay dem ne leen 2000 laa ko jëndee. soxlawu ma si dara bëgg ngeen am lu ngeen yóbbu seen kër rek dem leen ngeen jaayee 3000 bu ngeen paree weer sama sama 2000 2000 wallaahi lazim. te noonu la neexee te waaw parfum baa ngi nii olob lañ koy wax. doo ko booleeg dara olob la. doo ko booleeg dara. benn nag moo ko gën a garaaw nouveauté bi ah? waaw. lépp garaaw suñu yàlla mais dañuy taxaw léegi dañuy que man tey waa Europe laa fi toogal. parce que gis naa suñu àll macha allah xam naa la bu baax a baax. gis naa bu baax a baax yi ngay def. am nga la ñuy jot ñamal sax moo tax coow li bëri na. mais dara teewul ñu dañuy gën a foncé incha allah yow yow la ñu àndal ginnaaw yàlla yalante bi ñoo ngi toog yow ñu ragaluñu dara mais suñu àll ñi nga xam ñoo ñu dañoo nekk bitim réew am fa ay jabaru nasaraan mm-hmm. bëgg ay kayit ñooñu aussi tamit yaakaar naa am nga li nga xamante ne war ngeen ko mën a jàppale te yàlla rek tax mm-hmm. waaw wax nga dëgg euh, loolu moom day am parce que léeg-léeg nit daf may woo tey suba rek am na ku fi jóge jabar tubaab la yoroon mook jabar tubaab yi am ay jafe-jafe mais wallahi lazim ñetti yoon la fi ñëw mais bi mu fi ñëwee avant ñetteel bi mi ngi koy commencé waate woo téléphone mais yàlla suñ borom def na ne ba suba la war a dellu waaw suba la war a dellu incha allahu rabbi ñetti yoon la tegle ñëw fii ñetteel bi mu fi ñëw nee na ma ah, mi ngi may commencé waat téléphone pour ma ñibbi si ma ne ko yàlla baax na man daal li may faral di wax man du ma bloqué nit te aussi tamit dama koy faral di wax du ma faj ku ami rab duma faj boroom ku ku sun borom ku di borom yóbbu sim xelam du ma faj ko ay jinne jàpp te tamit ku may ñaanal bu la do woowu ma kenn kaama ñaanal bu la doyee nga ñëw du ma assuré kenn ndax bëggumay taxaw place yàlla. te du ma yàlla lépp lu ñuy wax si alxuraanul karim bii lañ koy teg alxuraan bu tedd bi alxuraanul karim bii alxuraan bu tedd bi ndax kitaab bi mooy suñu téere fii lañ koy teg boo gëmee ñu ñëw ñaan si yàlla bind li ñu war a bind si secret yi nga xamante ni moom la yàlla suñu borom def si alxuraan bi jël secret yi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa def si secret bi jël secret yi nga xamante ni moom la Alaaji Maali def si eh, téere bi wax dëgg yàlla ñu dem ñaan si ñaan si jox la ak li ko war a booleel ak sungu fi ak boo gëmee nag nga ñëw boo gëmul nag waxuñu kenn nga toog mais xam naa ne ñi may jëflanteel tey mën naa ne bu ñu doonee dix huit yi suñu borom suturaal na ma mu mu ànd. am waaw. woy cuune sëñ àll ak Wally waaw sëñ àll ak Wally Seck mën naa ne lépp Amady Badiane la rek parce que jëmm jooju dama koy ñaanal suñu borom guddal fan. di wax Wally Seck lu mu gën a mën a jàpp Amady Badiane mu jàpp ko bu baax a baax a baax a baax ndax Amady mooy nit ku nga xamante ni tey boo ñëwoon tey si seen Wally Seck nga taxaw. bëgg koo jox cinq cent mille kee bëgg koo jox dix mille francs wallahi lazim dix mille francs yooyu noonu si boppam moom lay jël yëgale si kaw seen wàll seeg te du ko kenn waaw yal na leen yàlla defal jàmm daal hmm. waaw situation dëkk bi sëñ sëñ àll situation dëkk bi temps yi waaw dëkk bi temps yi tàng na li ma faraloon di wax rek waxoon naa ko dama koy waxaat hmm. man politicien du ma jar a xeexal sama mbokk politicien bu mu ko jar a xeexal hmm. Sonko na xam ne jeunesse bi ñii si boppam dañoo sonn Macky Sall na xam ne jeunesse bi tamit dañoo sonn ngir yàlla ak yonent bi bu fekkee Sonko day wuy ji pour mën a jeexal xeex bi rek jeexal xeex bi rek ñu jàppalaat ko bis na génn def conférence de presse ne bis sàngam damay wuy ji mais su ma sañoon ñëpp toog seen kër ma dem wuy ji si jàmm ak salaam bu fekkee maa nekk si dëgg dinaa ñibbi si waat bu fekkee nekkuma si dëgg ma xam ne dañ maa war a téye mu jeex tàkk loolu rek mooy fay coow li moom maam mbay ñaala nan xool nañ ko gérer rek Sénégal jëm kanam. mais ñu mel ni politique moo ko li egg fi mu waaw dañuy yor na ay preuve kañ moom wax dëgg yàlla nee na mi ngi ak ay preuve am ñu maa ngi dégg ñi ñi naan nee nan bu génnee preuve yi dañ koy tëj mais nit ki bu lay tëj nan la bu lay tëj sax nan la tëj si dëgg Sénégal yëpp xam ne yow yaa ne si dëgg moo gën a am solo bu boobaa buñ Sénégal yëpp xam ne tëj nañ ko si dëgg 2024 sureetul na tëdd li muy war a tëdd rek bu fekkee tamit warut a tëdd tamit ñu xam ne warut tëdd tamit li mu war a tëdd yàlla na leen yàlla defal jàmm daal Sénégal moom am na solo duñu fi ñëw ba dem te duñ la wax ci làmb ju baax bi wala làmb ju mag ji nga xamante ni taxaw na depuis démb démb yaakaar naa waa jàmbaar production ñoo ko tëgg booba nag Mansour Ba moo si nekk ñu koy nuyuwaale baax a baax doomu père Baba ak structure jàmbaar production yépp Siteu la ak Lac de Guiers 2 ñaari ñooñu seen combat sëñ àlla waaw Siteu ak Lac de Guiers moom xam naa combat bu doy waar lay doon. waa parce que combat bu nga xam ne amagul date. amagul xam nga ko ba heure la arbitre di souffler ku si wax damay xalaat boo waxee ba pare gars yóbbuwaat la vaar li may faral di wax rek làmb man su ma si liggéeyul min def mën ta wax ba ma wax si génn si média wax déedéet parce que non xam la moo tax ah. yow joxoo mbër biteel mu xëppoo joxoo mbër ne ko génneel sarax mm-hmm. nga bëgg ne diw mooy daan mm-hmm. noo loolu en général nit day faral benn mbër rek génn def sorteem ne diw mooy daan déedéet man nanguma lool man moom mbër mu nga xamante ni moom maa la jël samay bagage jox la ko nga dem yow mii sax day am am na ñaari combat yi fi jotaam bëggumay tudd seen tur wax naa la ne làmb nii lay demee te noonu lay demee waaw tax dama see liggéey quoi moo tax mm-hmm. waaw mm-hmm. mais yaakaar naa combat dafa taxaw rek combat bi mm-hmm. mais loolu est du mystique tamit la dëgër kii Siteu non du mystique parce que la dëgër mën naa ne tey champion la bu gars yi foog ne du ndaanaan parce que mbër bu daanu benn yoon waaw nii laam-laamee daanu ak daanu te heure boo ko jekkoo mu génn si kon kooku ndaanaan la Siteu xale la Siteu man naa ne 2009 2010 bi Bambey gi jël na fi façon drapeau bu ne bu fi seetaane émission bi na xam Siteu jël na drapeau bu ne fii Bambey bambay taax gii mu nii jël na ko bambay séréer heure bu daan bëree damay toog nii boobu laay soog ko jógee daara wax dëgg yàlla ku mën a bëree la wax dëgg yàlla non léegul waaw parce que ñoo làmb jeeg làmb la bi nga xamante ni moom waaw làmb moom muy promoteur muy mbër dangaa war a jug ci sa bopp préparé bu baax a baax waaw kon ni may jëflanteeg yeneen gars yi rek muy artistes yeeg affaire yi noonu yooyu noonu yëpp wax dëgg yàlla tey jii nii wàllum li nga xam ne mooy artistes li ni yiy tëgg dëgg dëgg dëgg war a tëgg bërëb sàngam mbëkk mu fees nan ma seet si yow mi wallaahi lazim ñuy def ay histoire yi nii artiste bu si bëgg a tëgg foo man di tëgg ñëwal nga seet si ma du Wally Seck man artiste moom waaw Wally moom Wally moom boo ko boo sax ne ko suyal sax moom nit ñi dañ koy wuy si parce may ak sunu borom laam loolu dañ koy nangul mm-hmm. Wally Seck ku ñëw ne da koy ñaanal da koy mottali rek mm-hmm. xanaa nga ñaanal ko gudd fan ak wér mm-hmm. yor kaaraangeem jeex na te fii ñu toog ne à chaque fois dañ koy ñaanaleel bu baax a baax kontaan nañ si yow yaakaar naa liñ ñu cëraloon si waxtu jeex na bu ma juumul wax waxtaan nañu lépp lu ñu waroon waxtaanee. ana tey lan ngay tàggatoo ak lan ngay baaxee askan bi sarax yi nga xamante ni mën nga digal askan bi ñu génnee ko. Mm. pour que le 30 mars bi nga xamante ni fa lañ jëm ñu conféquer kii di Ousmane Sonko yàlla suñu borom mën apaiser affaire yi def si jàmm. Mm-hmm. waaw waaw di nuyuwaat ñëpp di santaat ñëpp euh, ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si yonante bi di sant sama ñaari waajur bu baax a baax di sant suma yaay di sant sama papa ak sama soxna ak sama doom ak sama goro di sant Pa Modou mi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di wax euh, le 30 mars jeunesse bi ànd leen ak dal non violence te ngeen dimbali ñu ngir jëmmi Seydina Mohamed Ousmane Sonko message bi yaa ko moom xale yi boo jógee ñu jukk bëgg nañ la lool mais bu ñu sañoon balaa le 30 nga génn def sorti nit bu lay xale bëggee boo waxee rek dañ lay dégg nga ne leen ku jub pour topp ma bu may wujjule 30 bul taal bul sànni bul yor ngànnaay ku la bëgg door dóor croiser leen bara parce que boobaa journaliste yi dina jël ku ñëw bëgg maa caxat caxatee bëgg maa yóbbu bu kenn yëkkati loxo bàyyi leen ko ñu jël ma yóbbu ma loolu bu ko Ousmane Sonko ko waxee rek réew mi du am coow parce que man li ma gën a métti si bii passé parkinu jàmbir bi ñu taal nit ku jël ay millions def ko si parking mu tàkke noonu dafa ñaaw wax dëgg yàlla rafetluñu ko. tamit président Macky Sall na xam ne aussi tamit li war na ko def li warul mu bañ koo def. li war mooy tey jii sax moom mi nga xam ne mooy borom réew projet bi sax mënoon na koo jeexal ku ne dem sa yoon. loolu ñëpp wax. waaw mu jeex tàkk jàmm rek moo am solo. na si wax mu jeex. na si wax mu jeex di nuyu en passage tamit euh, directeur de l' emploi. Pape Modou Fall borom Diourbel. wax dëgg yàlla sunu wëllëre la sunu xarit la te ngi jàppale jeunesse jakartaay mi jënd di koy financé xale yi pour ñu liggéey ak ñëpp mais waa Bambey nag directeur de l'emploi dama la koy wax Pape Modou Fall waa Bambey gisaguñ seen bopp à 100 pour cent gis nañ seen bopp à 50 pour cent mais bëgg nañoo gis seen bopp à 100 pour fii directeur de l'emploi sunu xarit boobu di nuyu xaritam El Hadji Dia borom Bambey ak monsieur le maire Assane ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak suñu papa Moro Diallo bu baax a baax a baax a baax waaw acca mi ngi noonu Kalidou yaakaar naa tey sëñ àll lañ dalaloon uh, borom kaan bi borom bambay gën ngeen li nga xamante ni mbokk yi jot na ko wax uh, si émission bi lépp li nga xamante ni neex na fi rek jàppale ni suñu borom la waaye lépp lu fi naqari lu nekk rek jàppale ni suñu mat ji la ndax dañu bëggoon uh, lépp a neex waajee ngi nii ndaa daan bee ngi nii yaakaar naa numéro téléphone yi Kalidou bu ma juumul Kalidou numéro téléphone yi di def si bas d'écran bi pour que yéen ñi sitaan ngeen mën contacter ki nga xamante ni mooy sëñ Alla borom Bamba yi soo leen ko woowee seen aaj yëpp dana faju si kàttanu yàlla mbokk di daje beneen yoon si beneen numéro ñu waxtaanee ko jaa ngeen jëf.